Euh, faire de l'avocat au thon pour tog avocat au thon lan une grosse boîte de thon di nga soxla potu thon bu de la mayonnaise di nga mayonnaise du vinaigre di nga vinaigre de l'huile d'olive di nga huile d'olive du jus de citron di nga citron du sel di nga du poivre di nga soxla Préparation. Nunu togué avocat au thon. Couper les avocats en deux et retirer les noyaux. di nga da avocat bi nga xolli ko dagg ko ci digg bi nga dindi lépp loo xam ne nekk mooy. Euh, noyau bi mhm. évider la chair des avocats et déposer-la dans un saladier. après nga jël li nga ya nek moy ñamu avocat bi nga tek ko ci ben saladier. égoutter le thon et émietter-le dans un bol da ngay dindi ton bi ci pot bi nga daal di ko teg ci benn bool moom tamit. Incorporez-le à la chair des avocats dans un saladier et mélangez bien. da ngay jël avocat bi ak thon bi nga jël ko bolé ko ci ben saladier nga daal di ko jaxassé ba mu jaxasoo. Ajoutez l'huile d'olive et la mayonnaise puis remuez jusqu'à obtenir une crème épaisse et bien homogène. après nga jël mayonnaise bi ak diwlin bi nga jaxassé ko ak thon bi ak euh, avocat bi ba nga am li nga xamné ne ne mélange bo xamné ne ne que na bu baax a Ajoutez ensuite le vinaigre et remuez à nouveau. Après nga vinaigre bi nga daldi Salez et poivrez à votre goût. Après nga Déposez le mélange dans des coupes et arrosez-le avec du jus de citron après nga jël ko daal di ko def si ay coupe nga daal di bu ci nekk nga daal di ci wis ndoxu limon. alors vous pouvez les mettre dans des coupes ou plutôt les même les ramener dans le parce que boo dindé quand vous enlevez euh, la chair euh, de l'avocat mm-hmm. il reste euh, la la la partie euh, où il y avait donc vous pouvez mettre ça à l'intérieur mm-hmm. donc la peau. xa ni nga jëlé woon avocat bi nga dindé woon ci ñam bi xam nga avocat bi day des der bi rek mën nga jël jaxas bi nga def nga def ko ci biir der boobu doonu nga daal di jël limon bi daal di ko ci def. voilà réservez-les au frais jusqu'au moment de servir servir avec du pain nga bayiko ci biir frigo bi ba heure bi nga xam ne nekk jot na pour daal di ko lekk nga daal di ko génne boole ko at mburu du pain ou des biscottes su la neexee nga def ko at mburu bu la neexee tamit nga jël biscotte voilà c'était le le petit plat du jour lii moo nekkoon togg bu ndaw bu tey bi bon appétit